di fàttaloo ci sama bopp di leen fàttali lépp loo xam ne moom lañ ciy digle suñu bopp lañ ciy jiital lépp loo xam ne moom la ñuy tere suñu bopp lañ ciy jiital ngeen gëm yàlla te ragal yàlla te wéetal yàlla te jaamu yàlla suñu tuba bu ñu bu allah xidal ci yent yow lañ ko yaakaar kon ñu gën ci farlu bu baax ñu wax léegi ci xutbu arab ñëpp da ko dégg yaa ayuha nnaas ubudu rabbakum اتقوا الله حيث كنت إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت nekk jéggi moo tax ñu ci dolli li ñu ci dolli rek ñu ko di ko jox amoon farlu ci topp yàlla li nga xam ne ñoo aju ci bis bi itam ñoom ñoo war a jiital sax ndax mooy bis bi la aju loola moo di li ñu def léegi muy julli li nga xam ne ñoo aju ci bis bi itam ñoom ñoo war a jiital sax ndax mooy ci gis bi la aju loola moo di li ñu def léegi muy julli ak tabaski yi tabaski yi dafay def lu ma tafaw ndax àllaaxira yaari kër a fa ne dafa am yoon ñu ko sàkkal yoo xam ne ñoo ca jëm këru teraanga ga ak këru mbugal ga nga xam ne moom si yàlla mosal ñuy wax siraat moom la teg ci kaw jahannam te kenn amul fooy dox fu dul foofu te siraat mi ñuy wax ne ñu la loo xam ne dañu moo dañu moo gën a sew ab kawar wax ni moo gën a ñaw jaas te ca la ñëpp aw dem ci kër yooyu bu ca doo cay dem te ca suuf itam ñu ko gàll ci kaw jahannam بلا بشيء جهنم عندك يعني تشوف يعني من فيها الله موسى ولا نفس من يعني رحمة تبشكي ومن يعني تبدا رحمة تهديش من يندب داخل شيء متبشكي نخ ما يدن شيء من يندب بكل جد يسرع حفظوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم كل فوق من فوق تلاقوا كل من يلمع يقول في عون يعني من مبنى فوق تيتم قمنا نكيب كو خمس نحن كو سيتي مش بي مش بي دير سيدون يلا دون لكو فجاه waaye jekk ba xam ne weer yu terul kër kër yi di sonn di dem ci aw nit ñëpp ku ci ne boo ko fannoo rek yàlla dina la ci dimbale balaa bis bee del si doon boo ko jiitalee ci boo ko boolee ci mi nga ren deret jeeg séddrit seeg kawar yi ñu saxal bëjjën yeeg lépp ay tuyaaba lañ la koy bindal kon loolu bu bisam dikkee balaa dikk mat na faa gënd ko te bu dikkee nga def ko mu baax noonu mu ko santaane am na it ci bis bi la moo wax ak jëraatu ñeneen kabar yooyu ñuy def di ko wax yooyu ñeneen ñu ngi dale nag ci tisbaar bii ñu jëm ba ci ba bu ñu nga koy farata rek nga allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd soo ko mënee noonu nga kàbbar ñetti yoon rek soo jullee julli farat daana ci tes daana tey ji ci bisum ñeent ba boo jullee ko nag donc yi itam ñoom farlu waxtu yu juróom ndax ñu ko yonent bi misaale wax na ndax koo xam ne ab dex dafa ndox fi sa buntu kër bis bu ne nga sangu juróomi yoon ndax da nga dese Dakar nga dese nga dese eh, ab tër ñu ne noonu la noonu la noonu la juróomi julli yi mel ñu ne dox boobu dox fi sa buntu kër bis bu ne nga sangu juróomi yoon mais kooku du dese ab tër noonu nag ne la ne la julli yi juróomi mel te loolu ñu ngay dégg ci àllaaxira di ko dalee ci sukkuraat rek bàmmeel beeg wéetaayu beeg xataayu beeg tàpp gëm lay tàpp tër bu yàgg beeg ba ci bis boobu lépp bàkkaar rek fuy sonal nit ku tàggat rek dara du la fa sonal yàlla na yàlla tàggale moom naka itam fi mu toll it lu des ci weeru tabaski yi moo des ci atum julli bi